wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit rawatina mbokki taalibe yi fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd ak ngeen di ànd ak ñun Touba ca kanam nag am mbégte tey jii ngir fas yéene ànd ak yéen ci ay leeral ci lu am solo loo xamante ne bii moo di liggéey bi mu fas yéene ànd ak yéen liggéeyal ko sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba moo xam nag muy ci dëkk bu sell bi di Touba wala fépp foo xamante ne bii ab jullit ma nga fa te aajowoo loxoom ca la nga xamante ne bii loolu lay def. waaye xam ne bokkoon na ci li tax ñu sos ko ci jamonoy Serigne Sidi Mokhtar Mbacke mi nekkoon juróom-ñaareelu xalifa Serigne Touba mooy dajale ñaari millions yu murit weer wu nekk ñu joxe ñaar téeméer bu ko. toppee ba at mi mu nekk ñaar fukki milliards ak ñeent ñu def ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba dëppale ko itam ak ñaanuk sëriñ Touba gi mu ñaanoon ci la mu Matlabul Fawzayni ngir lépp loo xamante ne bii ab jullit rawatina ab taalibe war na ko aajowoo ci biir dëkk bu sell bi di Touba mu mën a jàppandi. loolu nag dara jiitu ca lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram tax na Touba ca kanam itam programme wala doxalin wi nga xamante ne bii am na ko ci liggéeyal Serigne Touba mu ci déggoo ki fi nekkal sëriñ Touba bokk na ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram loolu nag tax na xam ngeen ne am na jéego yu am solo yu mu ci jot a def mu di ñeenti barabu fajukaay yoo xamante ne bii def na ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba doore ko ci Touba Lansar Boborel Kër Gol ak Daaru Xaddim muy barabu fajukaay yoo xamante ne bii yu mucc ayib la te askan wi tàmbali nañ ko jëfandikoo ba ñu ëpp ci ñoom sax jafe-jafe yi ñu doon jànkoonteel ci wàllu wér gu mën nañ ne fanqu na ndax barab yu am solo yooyu nga xamante ne bii Touba ca kanam def na ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaye mu am yeneen ñaar yoo xam ne ma nga ca ndaam ak Touba njaareem léegi tey ñu war koo mën a jëfandikoo ndax toll nañ ci rek peinture ngir mën koo daloo waaye xam ngeen ne moom saa su ne lu romb rek fàtte na ko ndax liggéeyal Serigne Touba moo ni mel ba na mu sumbaat nag yeneen ñeent ci biir dëkk bu sell bi di Touba ca Touba Aliya ca Saamuk Serigne Bara Khourédia ak ca Madiana Siis muy ñeenti barab yoo xamante ne bii teg nañu xeer wi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo nekk ci bopp yoonu murid yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér waaye ci kilifteefu Serigne Abibulahi Mbacké mi nga xam ne moom moo jiite Touba ca kanam ak mboolem ñi nga xamante ne bii ñoom la àndal liggéey bi. loolu nag mbokk yi ci lañu fas yéene ñëw indil leen ci ay leeral. waaye ñu dégtal leen ci itam ay kàddu yu soññ yoo xam ne tukku na ci tukkee na ci kilifa yi nga xamante ne bii ñoom lañ ko àndaloon. dañ koy njëkkee nag ca Touba Guédé Bousso di gox boo xam ne xam ngeen ne Serigne Mbacke Bousso moo ko sancoon ci atum 1917 ci ndigalu Serigne Touba Cheikhul Khadim muy gox bu am solo boo xamante ne bii. biñ fa Touba ca kanam di àgg fekkoon na ñu yittewoo ndax barabu fajukaay ba fa nekkoon amoon na ay jafe-jafe yoo xamante ne bii daanaka xawoon naa sax lëm xelum ñenn ci ñi nga xamante ne bi ñoo koy jëfandikoo waaye mbokk yi laataa ñuy gën a sori ci loolu dañuy ànd ak yenn ci jataay ba nga xam ne mooy tegu xeeru barabu fajukaay ba foofee ca Touba Guédé Bousso ñu ngi leen di sant ci turu sëriñ bi ci jëf ji rafetlu nañ ko lool lool ndax fekkoon na barab bi soxla woo ko ndax Guédé bokk na ci quartier yi gën a màgg ci Touba yi ci ëpp aw nit ci la bokk waaye ci gën a yaatu tam ci la bokk te ku ne xam na ci ñi fi doon liggéey sax dañ waxoon ne da ngeen di génn wuti fi ngeen nekk ndax poste bi kenn waratu fee nekk ndax ràpp gum ràpp ak danger ci nekk yoo xam ne nii bis mën naa ñëw mu daanu ci kaw maladie te a mag lay doon kon nag bu ngeen ñëwee gàttandu ko def ci jëf ju mel nii sëriñ bi nee na mi ngi koy rafetlu ak mboolem njaboot gi nga xam ñoo ne ci gannaawam ñu ngi koy rafetlu di ñaan sa borom ñu tàmbali ko jàmm ak salaam àggale ko jàmm ak salaam te ngeen ñëwaat fii bis bañ koy ubbi ñëpp teewaat fii te sunu borom nangul ñu ko bokkal ñu ko jëf yi nga xam dana ko jox jébbal sëriñ bi mu jébbal ko yonent bi salaam mu jébbal ñu ko defal ñu paju barab bi ngeen ñëw nag di Guédé yaakaar naa ne ñu bare bari xam nañ ko sëñ Mbàkke Bousso mi ngi ko sancoon 1917 ci turu ci ndigalu sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu sëriñ bi moo ko waxoon ne boo demee ba ca fa may naal jumaa nga nat lu mat ñaari kilomètre wala ñaari mil nat loo ko ci lu muy jàng natt loo ko ci lu muy dox natt loo ko ci waxtu ne boo demee nga samp foofee ba naal ba mu fay naal te mooy jumaa ja bu noppee nga dima ca taxawul taxawaay ba nga ca war a taxaw loolu moo sabab sëñ Mbàkke sanc fii ci Gédé bi mu koy sanc sëñ bi waxoon nag foofu mooy sama penk penk nag ñu ko xamul ci wolof mooy wanagu gannaaw fa ngay denc la nga gën a soxla mooy wanagu gannaaw mooy penk sëñ bi waxoon na ko Gédé mooy sama penk kon lépp lu ma am lépp la fekkul rek dama ko amul. maa ngi leen di nuyu di jël nuyoo boobu di nuyoo sëriñ Abibu Mbàkke moom sëriñ Faadilu di jëwriñi Tuubaa ca kanam waaye sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Abibu imaam ànd ak sëriñ Abdul Fattah Gueye mi président wu exécutif wu Tuubaa kanam sëriñ Cheikhouna mbake Duyooli sëriñ Fàllu Njaay di fondateur Touba ca kanam waaye yore itam commission bii di santé ànd ak Touba ca kanam buñ ko waxee muy commité directeur ba wala sax majlisu shura ba ak président wu commission yëpp ak su commission yi ànd ci biir waaye membre Touba ca kanam yëpp di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo suñu kilifa gu baax giñ fi fekk mu di Serigne Omar Bousso di xalifab sëriñ Bousso bi tey fii ci Guédé nuy ñaan yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak waaye di ñaan Cheikh Mamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak ak wér ak jëwriñam yi nga xam ne ñooy taxawe Touba ca kanam ak di taxawee lii di dëkk bi mën nañ ne Guédé kenn desul macha allah bisub tay bii nag di bis boo xam ne dafay fàttali démb di taarix ndax kii di Serigne Mbacke Bousso fépp fu Cheikh Ahmadul Khadim masa nekk di fa taxaw saa yoo geesoo gis ko ca wetam muy ca ba muy sanc dëkkam bii te mu yore woon li ci gën a ñor sëriñ bi te mooy xam-xam ak dundal ko kon nag Touba ca kanam ci tànk yooyu rek lay dox ci loolu it ci lay taxaw te moo di am xel mu sell wala nit diine bu mën a gut wala bu mën a tut wala mu tële waragu ko su demee ba loolu amatut it waratu ko lépp luy tax nag loolu mën a taxaw ñu mën a liggéeyal sëriñ bi bu baax teg ko ci xam-xam ak jëfe ko ca na mu yelle loolu la ca jiitu mooy wér-gi-yaram wér-gi-yaram googu nag kon bu fekkee ne tuubaa ci kanam dafa ñëw gis ne am nañu ay ndes-ndes yu baree bari ci wàllu barab yu ñuy fajoo loole dañuy tàmbalee rek ci fi gën a jege muy yaatu ba baa muy àgg ca fa dëkk bi di yam loolee nag kon gede bokk ci warab yi nga xam ne bu dee ak yay fenn yayu ko ci waaye it su dee tàmbulee ci biir dëkk bi it loole fenn yayu ko ci bu dee ne ñi àndoon ak sëriñ bi la it di taxawe taxawaay yu am solo yooyee loole lenn yayu ko ci gannaaw bu ñu jógee foofu foofulee ca Touba Guédé Bousso dem nañu ca Aliya Aliya itam bokk ci dëkk yi nga xamante ne bi ñoo bootu ci biir dëkk bu sell bi di Touba ndax xam ngeen ne Touba yaatu na yaatuwaay boo xamante ne bi lu jege téeméeri village mi ngi bootu ci biir commune bu Touba waaye xam ngeen itam dëkku bu rawukaay la dëkku bu làquwaay la dëkk la boo xamante ni dëkku xéewal la ba fenn fu nekk la aw nit di bàyyi ko ca àdduna wërngal këpp ngir ñëw sànc si ci biir Touba loolu nag Touba ca xanam bi mu ko xamee saa su ne day góorgóorlu ci lépp loo xamante ne bii ay motuwaay la yu mu war a jël ci ñooñu nga xam ne am nañ yaakaar ci sëriñ bi ba jóge ci dëkk yañ ne woon ñëw fii ci dëkk bu sell bi di Touba. Touba Alieu tamit ñu door fa li ñu door ci Touba Guédé Bousso muy barabu fajukaay boo xamante ne bii jàpp nañ ne bu sottee lu bëri lu askan ma daan jànkonteel ci ay jafe-jafe ci wàllu faj daañu mën a taqalikoo jafe yooyu. ci teewaayu cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké moom cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu cheikh Mouhamadou Fadal teg nañu xeer yi foofa ci Touba Alié ba tey ñu won leen jataay bi. ñu ngi wax kàddu gi ci kàddu sëñ Moustapha Alaaji Baara. fii ci Alié di fi def poste santé boo xam ne bii ni mu ko daan defee ci fépp la ko ñëw defee fii sëriñ bi di di wax ni lii lay moom mi ngi ci sant bu baax a baax ndax wóor na ko ni seenu doxin yéen. moom ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañ ko tey euh, li gën a li ko gën a neex ci doxin wi mooy euh, lépp loo xam ne dañ koy yëkkati ci dëkk bi bu diisee ba jaaxal ñooña dañ naan nañ seeti tubaat ca kanam bu dee ndox mi bu dee lu mën a doon rek bu ca ñooña demee te ay gox la yoo xam ne dañ leen ko dénkoon Touba ca kanam nag du administration waaye dana dana am ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci administration ci dëkk bi muy ndox muy leneen buñ demee ba tële ca loola rek dañ naan nañ seeti Touba ca kanam tubaa ca kanam googee nag mooy ñëw nam nekkee li ñu ko tuddee Touba ca kanam mooy nekkaat ca kanam ba ba li bi sëñ Touba mu def ko. kon loolu rek moo doon kaddu yi nga xam ni sëriñ bi dafa waxoon ni nañ ko wax euh, ci allié gii kon nag mboolem waa allié gi nga xam ne ñoo dëkk allié gépp ñi ngi sant waa Touba ci kanam waa allié nag yéen amatu ngeen euh, euh, lu ngeen war a tee xaar ndax bu ngeen doon dagg benn bolok wala ñaari bolok wala ngeen a dagg fukki bolog te dara waralu ko nag lu may xam ngeen ni poste courant bi lii ñu fiy def tey nga xam ne askan wi ñëpp a tax ñu di ko fi def war ngeen yéen kenn dootu leen ci jiitu kenn jiitu leen ci waaye nag na ngeen gën a góorgóorluwaat kenn du leen ci jiitu fu ñu wootee tee na ngeen teew da ngeen ko doon doxe ngeen di ko ni doxe ndax Serigne Touba képp lañ koy defal defaluñ ko keneen dara jaddu ci ci ndigalul Serigne Habibullahi Mbacke mu Cheikh Mahamadul Fadil ak mboolee mbooloom Touba ci mi topp ci gannaawam la ñuy yëkkatee sunu kàddu niñ ko baaxoo defee ci dëkk bi yëpp xam ngeen ne bi ñu tàmbalee ba léegi euh, def nañ lu mat juróom-benn poste de santé ñeenti yi ñu ngi fonctionné ñaar yi ñu ngi phase terminale atum ren ji nag ñu amoon ndigal ak yéene yi tàmbali ñeenti poste de santé encore ci dëkk bi ndax nañ ne déficit bi ci wàllu poste de santé ci dëkk bi xaw naa yaatu lool ñeent yooyu nag euh, ñu ngi ni jóge Gédé tey ji waxtu wi ñu ngi bu ñu fi jógee am na yeneen ñaar yu ñu war a tàmbali kon tey jii bi nga xam ne moom la ñu war a def fii ci Alieu moom lañ doon tàmbali si euh, sëriñ bi nag di wax ne mi ngi sant sëñ Moustapha bu baax a baax ci taxawaayam ci barab bi nga xam ne kilifaam daf ko ko bàyyee mu fiy taxaw ci anam gu mu gën a rafete fi taxawu barab bi euh, bokk na ci loola tey bi ñu soxlaa barab bu ñu def poste bi daf cee taxaw tem daf ci taxaw tem def ci yitte ju wér a wér euh, doonte nag sax dëkk bi yëpp lañ koy defal waaye am na ci dëkk bi barab yoo xam ne bañ fa soxlaa def poste de santé fañ ko def dañ koo jënd fii nag loolu fekk ñu ci jox nañu barab bu yaatu bu accessible boo xam ne nii li tax ñu di ko fi def incha allah bu noppee lu ñuy mën a jariñoo la kon loolu lu ñuy sant sëñ Moustapha la euh, di ci sant Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne nii moo ñu jox ndigal ci liggéey ak mbooleem njaboot sëñ Tuubaa gi topp ci gannaawam di ñaan daal euh, ñëpp ñaan ci te jàpp ci ba lii ñu fi mébét incha allah balaa yàgg mu mu mu mu mën a sotti. kon bu ñu jugee foofu ca Touba Alieu di sant ak di. dolli sàkku ñaan ci mbooleem kilifa yi ñu fa fekk ngir Touba ca kanam yegg fa nga xamante ni fa la bëgg a yegg ci liggéeyal Serigne Touba dañuy daal di wutali nag fi nga xam ne moom moo di Madiana 6 bokk ci askan wi nga xamante ne bi soxla woon nañ lool barabu fajukaay digganteem ak barabu fajukaay yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba itam am na ab diggante bu xaw a sori ñu mën ko natt ci ay kilomètres loolu nag tax na Touba ca kanam itam gis ne yàlla na fa ngir ñu def fa barabu fajukaay boo xamante ne bii dana mën a jege askan wi di leen jàppale itam ci wàllu wér-gu-yaram waaye kon mbokk yi ñu dem foofu ca Madiana Siis sëñ bi ñu ngi lay nuyu li la jot a nuyoo sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa barab bi di la jotal ay siyaaram di nuyu mboolem mboole mi nga xam ne ñoom nga àndal liggéey bu tedd bu mag bi di nooru daara Touba ca kanam sëriñ bi wax na ne mi ngi lay sant mi ngi leen mi ngi leen sant mi ngi leen di gërëm cant goo xam ne kawe na njort lépp nag di ko jaare ci yow mi nga xam ne yaay seen yaay jëwriñ mbooloo mi waaye yaa fee seen jëwriñ nekk leen nekk leen fi ñoom ñëpp nee mi ngi rafetlu seen taxawaay bu baax a baax nee na mi ngi leen sant bu baax mi ngi leen di gërëm bu baax a baax cant cant goo xam ne ak ngërëm loo xam ne nag jataayu jataayu tey bi waralu ko seen jëfite ji waralu ko waaye seen taxawaay seenub liggéey ci dëkk bu tedd bii nga xam ne mooy dëkk bu Seexul di dëkk bi nga xam ne moom la Seexul Xadim gën a gënoon a moo ko gën loon ci lépp nga xam ne day mel ne lu ne lu ne mën na ko bokkoo ku ne waaye Tuubaa moom bokkoo ko kenn muy dëkk boo xam ne ñëpp xam nañ fi mu ko tegoon ni mu rëy ci moom li fi bëgg ñaan ko fi ci wax ko fu baree bari te lépp mu leer ci mat la bul fa seen i day mel ne ku gis mbo mbooloo mi ak seen doxin doo am sikk sàkk ci ne bëggam googee mu nga xam ne ñaanal na ko te ba mu ko ñaanee ba noppi dafa wax ne nam ko na ko ñaanee noonu la ko sunu borom may maye ku gis seenu doxin ak seenu taxawaay doo am sikk sàkk ci ne mbooloo mii moo taxaw ngir jëmmal loolee kon nag taxawaay bii nga xam ne yéen a koy taxawee ci tubaa nee na lu yëg la lum mu rafetlu la lu gërëm la Touba moom day mel ni fépp fépp benn la genn genn kër la rek ay néeg nekk ci waaye day mel ne loo def ci kër def loo def kër gi rek ñëpp néeg yëpp nga defal kon mboolem jëf yi ngeen jëf ci Touba fu ngeen ko jëf rek day mel ni Madiane ngeen ko jëf kon mel na ne ñëw ñi tey ngeen fi ñëw waaye day mel ne jëkk jekk seen fi jóg ndax fu ngeen jëf rek Touba ngeen gépp ngeen ko jëfal fu ngeen jëfit jàpp na ne moom moom ngeen ko jëfal liggéey bi moom liggéey Sëñ Tuubaa la liggéeyu murid yëpp la te it euh, murid bu ne sa saa yoo saa boo xëyee li ngay dàkk mooy bëgg Sëñ Tuubaa nga ci nga ci sa kem kàttan waaye Tuubaa moom képp ku jëf da dàkku ak bëgg da lay wóor a jam nga bëgg Sëñ Tuubaa kon nag dañuy soññ suñ suñu mbokk yëpp suñu mbokk taal yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër Sëñ ñu xam ne kenn wër lañ ci jiitu kenn wër lañ li yëkkati kàddu ci ndigalul sunu kilifa sunu jëwiñ sëriñ Habibu di ko teg ci loxol sëriñ Saalihu moom sëriñ Sohaybu mi fi teewal sëriñ si Mbàkke ak njabootam gi mu fi bokkal nekk sëñ Moustapha ak sëñ Ebo sëñ ak mboolem mbokki taalibe yi kon sëriñ Habibu ak waa Touba ci kanam ñi ngi fam nuyoo boobu di ko teg ci seen loxo ngeen jottali ko sëriñ si amadu Mbàkke di ko xamal ne ko Touba ci kanam nan ko waxoon ban fa dikkee di ko yëgal liggéey bi rek foofee ñu tàmbale woon ba tey foofa lañu nekk muy suñ itte seen yéene seen pëstéef seenu bëgg lépp mooy liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi lii nga xam ne itam moom lañ fi doon tàmbali muy poste de santé bi nga xam ne mm, sëriñ bi moo waxoon ne itti woon na ko fi te ni dàkk bëgg bëggu soxla waa dëkk bi di dàkk soxla njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoo dox diggante mbooloom ak sëriñ bi ndax dëkk bi ni ko sëñ boo waxee genn kër la waaye fenn fu ne sëñ bi dafa samp jëriñ ju ko nekkal waa koo taxawal njaboot gi ndax njaboot gi fi ñëw jëpp njabootu sëñ Touba ñëpp sëñ Touba lañ wuy si kon fu waay féete sëñ bi nga fa nekkal kon jëriñ joo xam ne dangaa féete fenn sëñ bi nga fa nekkal njaboot ga fa ga nga fa ga nga fa nekkal njabootu sëñ Touba la yaa leen war a taxawu ca lañ mënut kon loolu mooy waral kilifa yi waral taxawaay yi ñu am ñu du ko am ci dëkk kon Serigne Cheikh bu lu mel nii accès te Touba Kanam bi ñu jógee rek li ñu tàmbalee woon mooy mbirum poste santé ba mu agsi fii te barab bii ñu koy def it ku fi agsi xam ne itteewoon nañ ko fi te yey na fi yàlla na fi kon Touba Kanam ñi ngi am yéene am ak pas-pas fas yéene koo defar ba mu mel ni ko sëñ bi bëggee defar ko ba mu mel ni ko askan yu bëggee bañ li nga xam ne moo tax mu jug muy ñu man cee faju yàlla defal na ci tawfeex bañ man ko ci am kon loolu suñu yibu ak mu mboolem waa Touba ca kanam seen pas-pas ak seen yéene ak seen itte moom mooy dëkk bépp fu ñu àgg gutit dañ fa mën a gut a àgg ndax mënta mëneesut a xëy dajalandoo lépp waaye suñu yéene mooy fu dara waw ci dëkk bi ñu def ko fa loolu nag dara du ko maye lu dut li nga xamante ne mooy lii nuy laaj ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj ci taalibe yi ndax lu ñu ci ba defee ci loolu lañ ko def ñëpp maas am yéeg-yéegu yu ci ne bu ñu ko dee def mën nañu faj aajee dëkk bi te duñ tàllal loxo kenn ñu gis jataay ba ni mu muritee ak soññe yi nga xamante ne bi tukkee na ci ndigalu sëriñ abibulaahi mbàkke jaar ci sëriñ abdoulahat mbàkke abibu waaye gis kàddu yi nga xam ne jóge na ci sëriñ aboo say jóge itam ci sëriñ saaliwu mbàkke moom seex soñ bu mbàkke mi nga xam ne moo fa teewaloon sëriñ seex say waaye ñu tëjee ko nag ak uh, gox boo xam ne itam bu am cosaan la ci dëkk bu sell bi di Touba ndax xam ngeen ne borom ñeenti fay yi moo di Maam Mor Jaara mi nga xamante ne bi moom ak Serigne Touba ñoo bokk lépp bokk ci ñi nga xamante ne bi uh, ñu ràññiku lañ ci yoonu murit liggéeyal Serigne Touba itam liggéey bu ràññiku saam googe nga xam ne ni ak saamam la nag ñu koy wax saamuk Serigne Baara Xurëja foofu la Touba ca kanam def ñeenteelu barabu fajukaay bi nga xamante ne bi bokk na ci programme bi mu taxawal ci wàllu wér-gu-yaram askan wi tamit nekk loo xamante ne bi doon nañ ko xaar lool ndax yàggoon nañoo am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram muy dëggal rek li ñu waxoon léegi ne Touba ca kanam li ko tax a jug mooy liggéeyal Serigne Touba ci taalibe yi waaye liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bu sell bi nga xamante ne bi moom mooy Touba. kon nag ñu dem foofa ca saamuk Serigne Bara ja xool jataay ba itam ngir mu dolli soññee ci ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu ngi jëf ci Touba ca kanam wala ñu bëgg cee jëf. Serigne mi ngi leen di nuyu. mbooleem waasam ñi nga xam ne ñooy njabaatu sëñ Baara Xureeja góor ak jigéen ak mbooleem seeti sëñ Baara Xureeja yi góor ak jigéen ak mbooleem dëkkandoo yi ak mbooleem taalibe yi ak mbooleem bokk yi yëpp sëriñ seex nee na mi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Xaadimu Rasuul di xalif central de Mouride. sëriñ Cheikh nee na mu ngi nuyu sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak mbooleem bokk yi nga xam ne ñoom la àndal ak mbooleem bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal ci tuubaa ci kanam muy sëriñ Abdou Lahad ak mbooleem njaboot gi gépp mu ne su ne lim waaye gis nañ leen ñuy sant yàlla nag bu baax ci bis bii di santit sëriñ Touba bu baax di sant sëñ Bara Khourédia mii sunu wayjur te yàlla dogal mu nekkoon ci barab bii doon ko saytu bi mu fi jógee suñu kilifa nekkoon fi doon ko saytu ba tey ji yàlla dogal mu tege ci loxoy Serigne Cheikh mu ànd njaboot gi gépp nekk ci la kilifa yi nekke woon lii nag yàggees na ko mébét yàgg nañ koo bëgg waaye nag tey jii la ko yàlla sunu borom di door a dogal ñun kat amuñu lenn lu dul sàmm mooy sunu cër kon nag luñ ko sàggane lu ñu ci waay jàppalee rek yëg nañu ko lu ñu ci waay xeebalit yëg nañu ko ay gor lañ nag ay taalibe lañu ay dëkkandoo lañu waaye nag nii mu ñu taxawoo gis nañ ko xam nañ ko ndax kat amoon na fi jamono yoo xam ne ndox ñàkk na fi bàgg ci lool ñu ne pompe bi moo yàqu waaye kenn defaru ko ñoom ñoo jënd ay pompe dikk monteel saam ba saam amam ndox ñu door a jàll feneen. seen xëyum tey mii nag su fekkoon tey ci ngeen tàmbalee doy na jëf. ndax mbooleem xeet wi ak bokk yi ak taalibe yi kenn gisagut ngeen njaaloo kàddu wala jëf li ngeen di def sëriñ bi rek a tax làmp yi ci dëkk bi mbooloo mi ngeen di ànd di liggéey yéen ko fi def kon nag mbooleem askan wi nga xam ne dëkk nañ ci saam te amuñu lu weesu sëriñ bi bu ko sëñ bi doon laaj jëmee ko faneen nit war nañ koo bànneexoo suñu ko laajee nag defalaat na ko ci suñu biir kon kooka taw feex la ndax jëf moom ki la ko war a laaj bu la ko laajee te nga dib julli dib bi booba rek nga war a nangu li ñuy liggéey rawatina koo xam ne ba noppi day wax ne la téel nga xool fam la koy defal muy sa njariñ waxuma la baytin bi ay saayir si moom kenn ku ne mu ngi ciy jëriñ kon nag xol sedd na xel dal na sun borom mi nga xam ne moo tax ngeen di liggéey ak jëmmi sëriñ bi yàlla na leen dolli feex ak ndimbal ci turu Abdou Lahad Ka le maire ci suba ba léegi ñi nga ànd ak waa ca kanam ci seen liggéey yu rëy yu ñuy def Gédé lañ njëkkee kër Serigne Mbacké so teg nañu fa aw xeer tàmbali fa lu mel nii bañ fa jógee ñu dem Aliya kër sëriñ fallu fekk fa Serigne Moustapha moom Serigne El Hadj Baara def fa lu mel nii. dañ fa jógee ñu dem Madiana 6 kër Serigne Chouaïbou njabootuk Serigne Cheikh Say def fa lu mel nii. dañ fa jógee ñu ñëw fii kër Serigne Baara Khourédia def fi lu mel nii kon jërë ngeen jëf maire nag dafa wax ni. lépp loo xam ne rôlu maire la ci fa ci wet googu rek ni ko sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ abi bu waxe woon mi ngi leen ciy déglu te di leen ci tàllal loxo lépp lu ngeen ko ci wax dina ko def incha allah ñi ngi sant bu baax la ca des rek mooy di ñaan tey soññee maa ngi ziare sëñ bu Mbàkke mi nga xam ne nii moom moo toog suñu ginnaaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ne docteur Ndeye Maguette moo ñu yónni maa ngi ànd ak madame bi nga xam ne nii moom moo nekk jéemul ne kat bis bi solo bi mu am solo moom li nekkoon mbébétam mooy sol dàllam ñëw fekkeel ko boppam waaye di leen xamal ne docteur Ndeye Maguette ne na bégati na bégati na lu bëree bari ci Touba ca kanam ndax ñeenti post yoo xam ne nii tey pare na Touba ca kanam liggéey na ko teg na ko ci loxoom ba lig ña toppatoo askan wi ci toppatoo bu mucc ayib te loolu résultat yi ñu ngi koy gis te am na ñeneen ñaar yoo xam ne ni ñu ngi waaj a pare tey Touba ca kanam bu jëlee mbébét ne ñeent am na yéene fas-fasab defaat ko kon dannaa alhamdulilahi rabbil jërëjëfe Touba ca kanam jërëjëfe sëñ Abibu buñ la tuddee tudd nañ waa Touba ca kanam ñëpp di la wax ne docteur ndey Maguette ne ne poste yi de bég nañ ci lool lool te lu ngeen ci def doyul ndax lu tax doyul Touba la xam la nit xam fu mu commencé mais xamuñu fu mu yem ndax askan wépp Touba na ñuy mujje ñëpp a ngi daw di wut si makkaan kon nit ñi dan naa ginnaaw Dakar Touba moo fi ëpp nit mais man sax dama naa Touba moo ëpp nit Dakar kon loolee tey bu ngeen jógee di ñu jàppale ci wàllu wér-gu-yaram docteur Ndeye Maguette ne lu ngeen ci def jàpp leen ne moom ngeen ko defal bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko yëgut kon ñun amuñu seen fay ndax fu ñu taxawee wàllu santé Touba ca kanam mi ngi suñu wet mbas mii dong doy na ci misaal du ma jugg ci biir doy na ci misaal kon jërë ngeen jëf. ki njiital Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàgg loolu te wéral ko la ñu tegoon xeeru poste de santé bu Lansar mu yóbbaale yeneen ñett yañ ko booleeloon te mooy Bobareel Kër Gol ak Daaru Xadim mu nekkoon ñeenti poste de santé yoo xam ne biñ ko tegeeg léegi mi ngi ci ñeenti at. kon ñeenti at ginnaaw bi bu ñu xëyaatee di tegaat yeneen ñeenti euh, xeer yeneen xeer yi ñeenti poste de santé tawféex lay doon ak yokkute lay doon te lépp day delluwaat ci liggéeyu sëriñ bu mu nangu ñoom ci sant yàlla bu baax. yàlla dogal ñeent yi nga xam ne tey jii moom la ñu xëyee fas yéene ko tàmbali tey jii ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ñeent yooyu mooy fekk si juróom-benn yi nga xam ne fi mu ne nii manees naa wax ne juróom-benn yëpp noppi na ndax ñeent yaa ngi dox yeneen ñaar ñu ngi koy peinture. bu ñeent yi ñëwee dolli ko ci day doon fukk fukki post de santé yu mel ne yi Touba ca kanam di tabax nag nga xam ne du ay poste de santé rek niñ ko baaxoo xamee ak niñ koy déggee ci gox-goxaan yi ay poste de santé la yoo xam ne euh, yu moderne la maanaam yu méngoog jamono la yoo xam ne li ci war a am lépp daf ciy am ndax dafay am lu ñuy wax médecine euh, am lu ñuy wax euh, maternité médecine ak maternité lay am médecine bi ci la infirmier bi nekk ak ña koy dimbali maternité bi ci la sage-femme bi nekk. amaat tamit ay logement yoo xam ne infirmier bi dañ koy wutal logement sage-femme bi dañ koy wutal logement. di wax ne gox bii nga xam ne tey jii moom la ñu jeexale ginnaaw bi ñu jógee Gédé euh, Gédé ak sëñ bu Bousso jóge fa dem Aliya jóge fa dem Madiana mujjee fii fii li lay firndeel yéene ji nga xam ne moom la waa gox bi am ànd koog seen kilifa yu tedd yi mooy ni nga xam ne noonu la ñu accueillir mbooloo mi ci njiital Serigne Abibou loolu firnde lay tekki ne woo nañ waaye bàyyi nañ xel liggéeyu tubaat Ca Kanam liñ ciy waxaat nag mooy Touba Ca Kanam moom kuréel la goo xam ne ñi koy jox ñi yëkkati di ko jox Serigne Touba rek a tax ñu di ko jox. li muy liggéey Serigne Touba tax rek a tax mu di ko liggéey moo tax léeg-léeg Touba Ca Kanam dina dem ci gox boo xam ne xëy na sax xamuñu fa wala fiiwu fa kenn koo xam ne mu ngi dagg ay rosi ci Touba Ca Kanam te teewul bu ñu gisee ne yittewoo na nangam dañ ko fay def. léeg-léeg tamit am gox yoo xam ne ñu jàmbaare lañ ci Touba ca kanam te ba léegi xëy na Touba ca kanam loxoom accès gu fa wala bu fa accès amagut solo loolu li muy tekki mooy alal ji buñ koy dajale jëmmi Serigne Touba tax di ko dajale buñ ko dajalee ba noppi li am solo nag ginnaaw bu ñu laajee li ñu man ba noppi ñu di ko def fu ñu xam bokk na ci def fu ñu xam nag mooy nga xool la a jiitu nga jiital ko la ca topp nga toftal ko ca te noonu la Touba ca kanam di doxee dëkk bi nga xam ne dëkk bu Serigne Touba la murit ku yaakaar Serigne Touba dëkk bi sa dëkkal ndax fi la leeru muri di bal baloo di tasaaroo ci àdduna bépp te àdduna bi doon àdduna bu bu compliqué àdduna bu tëju la sëriñ bi doon ñaan ci fawsa euh, yi ni di wax euh, euh, naa charra nasara wal yahud wa charra iblisa wa kulli si juhut loolu dañoo toll ci jamono ba ko sëñ bay wax sax sëñ bi jamono jooju amoon na waaye ci jamono ji la gën a bare li ñuy wax lobby yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi takktoo fu lu baax nekk ñu jëm koo dugg la la ca mën a muccal mooy nga mënal sa bopp ndax boo mënalu sa bopp ñoom ñoo ñi ñoo lay mënal te buñ la mënalee ñoo lay ñoo di di la xëj di la jëmee fañ bëgg nga jëm fa loolu moo tax képp ku yaakaar Serigne Touba war a gën a farlu ci Touba ca kanam gii weer wi leen ñu ci joxe ñaar téeméer ndax bokk na ci jumtuwaay bi mën a dimbali murid yi ngir ñu mënal seen bopp xëy na bu fi gënam kuréel taxawoon gu mel ne Touba ca kanam ñëpp a war a songu jib ci waaye ginnaaw bañ ko dalee xalaat ak léegi yàgg na te yàlla defal na tawfiq ba Touba ca kanam taxaw na doon moomeelu ñëpp bu kenn bàyyi jàpp ne Touba kanam gii moomeelu sëriñ Abibu la wala sëriñ Abdou Lahad wala donga yi ngeen di gis ci ron gi ñu ànd ak ñoom sëriñ Abibu ci boppam doxewu ci noonu ta ta ta te bëggu ko dafa gëm ne Touba ca kanam murit yépp a ko bopp kon ñépp a ci war di gis seen bopp loolu moo tax ngeen gis Touba ca kanam ay liggéeyam amu ci xaj amu ci seen léeg-léeg ñu dem ci bërëb boo xam ne sax bu ñu fay liggéey ñoom waa bërëb ba ci boppam danañ xamle ne fii kat xëy na lu ñëpp bokk ñu yenu ko indi ko fi gëj naa am wala mësta am te Touba ca kanam moo ko fa njëkk a def yi nga xam ne ñi ngi koy def ci biir dëkk bi loo ci jël rek domaine de compétence la boo xam ne am na ku ko jagoo benn muy commune bi wala muy état wu Sénégal bu ñu jëlee par exemple poste de santé yi nga xam ne moom la Touba ca kanam di tabax yéenay Touba kanam mooy mu dugal loxoom ci li ñuy wax plateau médical fexe ba wér-gu-yaram niñ koy xemmeeme ci dëkk yu mag yi nga xam ne dëkk yu am alal la loolu am am Touba te ko li ci des mooy ak nosu ak organisation waaye autorité administrative yi tamit jàpp ci ndax xam ngeen ne yéene Touba ca kanam moo doonoon buñ tabaxee poste santé buñ tabax ba noppi jàpp ca gestion ba te mooy doxalinu post ba ndax poste santé santé de proximité la buñ ko tabaxee ci ab gox association des femmes ya fa nekk association des jeunes ñoom ñooy takkatoo ànd ak waa poste de santé ba ñu taxawal li ñuy wax comité de développement ci njiital sous-préfet ba fa nekk commune bi ñoom ñoo jiite conseil de direction bi loolu nag Touba ca kanam bi mu tàmbalee dugg ci poste de santé yéene moo doon moo am benn de partenariat ak ministère de la santé boo xam ne gestion bi Touba ca kanam da ciy mën a dugal loxoom bu baax mott li ci yéeneem yéene jëm am ba tabax ko loolu nag lu jafe Touba ca kanam la ndax lu ne daj nañ ko ci muta déplacé wu nañ fii dem ba ministère de la santé fekk fa ministre bi nga xam ne moom la yàlla dogal mu wàcc waxtaan ceeg moom waaye ba léegi dara mënta sotti ci loolu nga xam ne Touba ca kanam ni mu mujjee pour mën a jàpp ci gestion poste yi nga xam ne jot na koo liggéey mooy ñu féete ci gox ba ñoom ñoo xajal seen i place ci Touba ca kanam ngir mën cee jàpp te loolu avantage ci ñoom li tax mooy Touba ca kanam poste santé yi muy tabax da koy équipé def ci jumtuwaay yi mu war a am yëpp ba ci machine échographe sax dañ ko jënd di ko ci def def ci ambulance ba noppi duñ ca yam poste bi buy dox bu xawee am soo waxee ci wàllu finance Touba ca kanam day génnee ci gafakaam di ko ci def di ko dimbali lu mel noonu nag bu amee convention de partenariat bu war a tax Touba kanam mën a dugal loxoom ci gestion poste santé yi war naa mën a yomb gouvernement bu Sénégal xëy na peut-être ay récupération politique wala wala communicationnelle moo ciy am te loolu boo ci jàppee ci nga koy ëppale ndax bu boobaa Touba ca kanam fu muy defeeti déclaration dana ne lii kat ministre bi fi nekk wala kuréel sàngam gi fi nekk moo ci dugale loxoom nii moo ci jàppalee Touba ca kanam nii bu dee district bu Touba ñoo ngi leen di gërëm liñ man lépp ñu ngi ko ciy def waaye bu dee ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw loolu moom fi wax gu wér moo ci am te ni ki nga xamee ne léeg lekk benn partenaire mën naa jóge bitim réew ñëw ngàbbu xaalisam indi fii ci réew mi ne dama bëgg a ci réew mi mais dañuy signé convention de partenariat ñu luwaa yi ñu am lu ñu leen ca wayafalal am lu ñu leen yombalal ñu waxtaan joyanti jubbanti yi wàññi fi yokk fee ba déggoo ñu siñante loolu Touba ca kanam a ci gën a yell te mel ne da koo të ma mën a am faw kilifay dëkk bi jàpp ci ñoo ngi leen koy ñaan waaye faw kilifay administration bi jàpp ci mel noonu ngay dem fekk ko ci yeneen domaines yi Touba ca kanam di intervenir yu ci nekk léeg-léeg am ay complication ci wet gu mel noonu mën naa cee jox jël misaal lu mel ne assainissement nga xam ne actuellement nii tubaa ca kanam décision bi mu mujj jël mooy lépp lu jëm ci mbirum assainissement moom dañ cee taxawandi ba tekk wane ci yoon ndax mbir léeg-léeg bu ca coow baree wax ji bari ci la ca gën mooy nga ne tekk ba tekk wan law yoon te seetlu nañ ne tubaa fi mu ne nii am na jafe-jafe bu rëy ci wàllu assainissement am na jafe-jafe bu rëy ci wàllu dem ak dikk te mooy dëkk bi nga xam ne li muy dajale ci mbooloo néew na ci àdduna bi dëkk bu koy dajale ci mbooloo par ndax Makkatal Mukarrama la fay daje matut 4 millions te Touba estimé nañ ne 3 millions 700 la ñu waxoon 2017 te war na ko romb léegi jàpp na na mar naa mat 4 millions yu fiy dajee li nga xam ne moom lay yëngal ci économie réew mi ci période màggal ëpp na 250 milliards eh, dëkk bu toll noonu di dajale lu toll noonu jamono waroon naa weesu ñuy toll ci mbedd yu taa wala tali yu yàqu wala nag ni waroon naa fekk dëkk bépp di ay tali fépp di ay pavé ñu jëmbat ci garab di ko bale nit ñi man li ñuy li ñuy li ñuy wax euh, euh, tourisme religieux dafa waroon a fekk Touba ko war a symboliser loolu ñi nga xam ne ñoo yaakaar sëriñ bi ñu ngi ciy taxaw di am kuñ ciy xaar ñu ñu ciy xaar mën naa am de waaye mën naa yàgg lool li ci gën a gaaw mooy nii Touba ca kanam di def takktoo dox jëm ca ku ñu fekk baax na ku ñu ca fekk nekk ca tey dañuy faral di wax ne murid yi attan nañu lépp loolu lu wér a li ci des mooy nosu ak organisation bari na ci borom xam-xam yi ak xalaatkat yi ñu yàgg a bind projet Touba ca kanam bii tuddutoon Touba ca kanam neneen lañ ko daan xalaate waaye li ci doy waar mooy bi Touba ca kanam juddoo doon jëmm bari na ñoo xam ne xay na dafa mel ne dañoo taxaw di seetaan jàpp ne dafa am moomeelu ko mu te fekk moomeelu ñëpp la. kon daal xëy na fi ñuy jeexale suñuy kàddu mooy sant bu baax a baax ñi nga xam ne suba ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi góorgóorlu ci jàpp ci liggéeyu Touba ca kanam bii di góorgóorlu ci di ko mafifier ak di ko yaatal noonu nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul taxaa waxoon ca bu njëkkoon ba nga xam ne toogagu toogaayam bii mooy ne man dey fas yéene na maa dem ci liggéey bi yóbbaale ci juróom-ñeenti murit ak man ma fukkee leen weer wu at mu jot ma joxel leen bi mu toogee toogaayam bi mu ne da def juróom-ñeent fukk ak ñeent ak moom muy téeméer loolu ku ne war nga ko ci moom boo mënta yóbbaale tamit nga war a mën a jël ñoo soññi ne man lu gàtt gàtt danaa wut juróom-ñeenti nit ñoo xam ne danaa leen di soññi ak man ma fukkee leen weeru lee ñu jox Touba ca kanam ñaari téeméer ñu delloo ko ci dëkkub sëñ bi ndax li wér te woon mooy màggal yii di ñëw ñu ngi naan mën naa dem ba juróom-ñetti at bu ñu fi yàlla bàyyee loo xam ne lépp ci biir mag biir nawet lay doon te tali boo ci topp fi mu ne nii néew na ci Touba nga topp ci ab tali cat ba cat te fekkoo mu am jafe ci jafe bi te mbeddum suuf moo wàcc bëgg a teggi da ngay am problème nag faaw ñu takkatoo taxaw ci faaw ñu takkatoo taxaw ci jërëjën jëf mbokk yi gannaaw liggéey bu am solo boobu di firndeel rek taxawaayu Touba ca kanam ndax dañ koy faral di wax laaj lu ñu mën waaye def ko itam fu ñu xam kon nag yéen ñi nga xamante ne bi yéen a ngi dugal seenu ñaq ci biir Touba ca kanam gis ngeen fi nga xamante ne bi foofu la leen ko Touba ca kanam di defal waaye saa su itam mu koy dëppale ak ndigalu sëriñ Touba di ko ko fi nekkal di sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér waaye ci kilifteefu sëriñ Abibulahi Mbàkke mi nga xam ne moo ko ànd ak mboolem ñi nga xamante ne bi ñoom la àndal liggéey bi waaye mbooleem jullit yi nga xamante ne bi ñoo ngi ciy dugal seenu ñaq rawatina taalibee Serigne Touba yi waaye nag laataa ñuy tàggatoo ak yéen faw ñu yëkkati kàddu goo xamante ne bii dañ leen koy dëgtal muy kàddug Serigne Touba bu ma ne kàddug Serigne Touba mooy kàddug Serigne Mountakha mi nga xamante ne bii tey jii murid yëpp la ñuy déglu moom la ñuy xoolee ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba moo di xalif général ku lu murid yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér fan la ko jaare Cheikh Mahmadul Basiru Mbakke moom sëriñ Abdul Xaadir bi nga xamante ne bii moom la jox kàddoom lu bari ci li nga xamante ne bii moom lay defal sëriñ Touba mu di ko jaare ci moom Cheikh Mouhamadul Bachir moomu yëkkati na ay kàddu nag ngir soññ itam taalibe yi ci ndigalu sëriñ Muntaxa ci taxawaay bi nga xamante ne war nañ koo dollee am ci Touba ca kanam. sëriñ bi nee na. kon sëriñ Habibou sëriñ Mountakha nee na. mi ngi lay nuyu bu baax a baax. mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. di la sant. di la gërëm ci sa taxawaay bu rafet bii. di la gërëm ci sa taxawaay bu rafet bii. nga xam ne liggéey bu yaatu la. nga xam ne liggéey bu yaatu la. liggéey bu rëy. liggéey bu rëy. boo xam ne tawféexi sëriñ Touba rek. boo xam ne tawféexi sëriñ Touba rek. moo tax mu mën a am. moo tax mu mën a am. mi ngi lay ñaanal bu baax. kon nee na mi ngi lay ñaanal bu baax. ci barkeb Serigne Touba. ci barkeb Serigne Touba. liggéey bi ngeen di sumb. liggéey bi ñuy sémb. yëpp sotti. yëpp sotti. ba yeneen naal toppaat ci. ba yeneen naal toppaat ci. ak ñi ci sa ñëpp. ak ñi ci sa gannaaw ñëpp. kon nag kon nag. nii ngeen ko yaatale ba ñëpp bokk ci. nii ngeen ko yaatale ba ñëpp bokk ci. ci liggéey bi ci liggéey bii. yàlla na gën a jëm kanam. yàlla na gën a jëm kanam. ndax Touba ca kanam. ndax Touba ca kanam li leen Cheikh Mouhamadou Mountakha wax. li leen Cheikh Mouhamadou Mountakha wax. kenn mënta indi seere su ko ëpp. kenn mënta indi seere su ko ëpp. na ci ñëpp xelum ñëpp gën a dal. kon na ci xelum ñëpp gën a dal. la Matlabul Fawsayni. Matlabul ni mooy li ñuy wax plan directeur bu Touba. mooy li ñuy wax plan directeur bu Touba. ku yoroon sa dëkk di ko di ko di ko rëdd. ku yoroon sa dëkk di ko rëdd. bëgg na mu mel nga wax ko. bëgg na mu mel a nga wax ko. noonu la ko Sëriñ Tuubaa defee. noonu la ko Sëriñ Tuubaa defee. kon da ngeen a jël mandarga mi. kon da ngeen a jël mandarga mi. seen projet yëpp ngeen tëgg ko ci. seen projet yëpp ngeen tëgg ko ci. kon loolu. kon loolu. jàpp leen da ngeen door a tàmbali rek. jàpp leen ne da ngeen di doog a tàmbali rek. ba ngeen di tàmbali xalaat. te it ba ngeen di tàmbali xalaat. bëgg réaliser ay postes de santé. bëgg réaliser ay postes de santé. boo kenn toon mën naa yomb nii. kenn musta xalaat ne mën naa yombe nii. ngeen dem ba defar assainissement bu bari. ngeen dem ba def assainissement bu bari. dem ba defar ay tëli. dem ba defar ay tëli. loolu ndam lu rëy la. loolu ndam lu rëy la. ab sag la. ab sag la. ak yëkkati ko la ci yoon wi. ak yëkkati ko la ci yoonu murit. luy wane ni Serigne Touba bëggoon yoon wi di doxee. luy wane ne Serigne Touba lii la bëggoon yoon wi di doxee. ci yoon woowu ngeen jóg. ci yoon woowu ngeen jóg yéen. mooy bañ a sukkandiku ci kenn. mooy bañ a sukkandiku ci kenn. sukkandiku ci sa bopp. sukkandiku ci sa bopp. ndax loolu moo ko digleel boppam. ndax loolu moo ko digleel boppam. te waxtu wu ne mu di ko fàttali. te waxtu wu ne mu di ko fàttali. ndax bëgg ku ko déggutoon déggaat ko. ndax bëgg ku ko déggul woon déggaat ko. ku ko fàtte woon itam. ku ko fàtte woon itam. delloosi na ñu ñu delloo si la. ku ca nekkutoon it. ku ca nekkutoon it. nga jéem a fexe ba nekk ca. te rikk nag. te te rikk nag. maa ngi leen di wattandikuloo. maa ngi leen di wattandikuloo. lépp ndimbal. lépp ndimbal. loo xam ne bu leen fajalee seen soxla it. loo xam ne bu leen fajalee seen i soxla it. dana xajamal seen diine. dana xajamal seen diine. tilimal seenub der. tilimal seenub der. xañ leen seen ngor. xañ leen seen ngor. xañ seen ngor. dana leen xañ seen ngor. tilimal seen diine. tilimal seen diine. tilimal seen jikko. tilimal seen jikko. mu wax ne ñett yii la koy maye. mu wax ne yett yii la koy maye. ak la koy xañe. ak la koy xañe. ak képp ku mu ci yow. ak képp ku mu néewul woon ci yow. na nga fexe ba wuti ko. képp ku mu nekk ci yow. képp ku mu nekk ci yow. na nga fexe ba mu sax ci yow. nanga nga fexe ba mu sax ci yow. mu wax nag ñett yooya. mu wax ñett yooya. la cay dimbali nit. la cay dimbali nit. mooy moom sa bopp. mooy moom sa bopp. ak man sa bopp. ak man sa bopp. ak ñàkk sa bopp. ak ñàkk sa bopp. day wax ju gudd gudd. day wax ju gudd gudd. waaye loolu. waaye loolu. yéen dafa mel ne moom ngeen teg ci seen kanam. dafa mel ne moom ngeen teg ci seen kanam sëñ Abibu. kon na ñëpp laxasaayuwaat. kon na ñëpp laxasaayuwaat. képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa. képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa. te bëgg dëkk bi jëm ca kanam. te bëgg dëkk bi jëm ca kanam. ndax dëkk bi moom Sëriñ Tuubaa noppi na ci. ndax dëkk bi moom Sëriñ Tuubaa noppi na ci. li mu ci ñaan suñu borom nangu na ko. li mu ci ñaan noppi na ci moom. suñu borom noppi na suñ borom noppi na ci te faw mu may ko ko kon nag gàttanu ñaanuk sëriñ bi kon gàttanu ñaanuk sëriñ bi mooy jéem a góorgóorlu ba mu sottee ci say loxo kon nag kon nag na ñëpp laxasaayuwaat na ñëpp laxasaayuwaat li ngeen di laaj lii ngeen di laaj bu ko kenn jàppee loo xam ne boo ko defee benn yoon wàcc na la. bu ko kenn jàppee ne boo ko defee benn yoon wàcc na la. saa su ngeen wootee rek. saa su ngeen wootee rek. ku ne na gëm ne. ku ne na gëm ne. ci woote bii la aajoom di faju. ci woote bii la aajoom di faju. ndax seen jëf yi kat. ndax seen jëf yi kat. wóor na ñëpp ne àgg na ci sëriñ bi. wóor na ñëpp ne àgg na ci sëriñ bi. ki fi nekkal sëriñ Touba seere na ko. te ki fi nekkal sëriñ Touba seere na ko. murid yi seen xel dal na ci. murid xel dal na ci. sëriñ Saliou daana wax ne. sëriñ Saliou Mbacké daana wax ne. xolub taalibe yi fu mu jëm. xolub taalibe yi fu mu jëm. fa la xolub sëriñ bi jëm. fa la xolub sëriñ Touba ca kanam. Touba ca kanam. néew na nga dégg ko àndut ak ñoom. néew na nga dégg ko àndut ak ñoom. te ak faru naas moom. ak faru naas moom. li ci suñu borom wax. li ci suñu borom wax. am ngeen ci tawféex ju rëy. waaye aw ngeen ci tawféex ju ndax yii ngeen tàmbali tey. yëpp ay farata la. ay farata la. ndax gede. ndax gede. dëkkub sëñ Mbacke Bousso la. dëkkub sëriñ Mbacke Bousso la. sëñ bee ko fi yabaloon. sëñ bee ko fi yabaloon. ne ko mu sanc ko. Madiana. Madiana. sëriñ yi boo ko sancoon. sëriñ Chouaïb bu mbakke moo ko sancoon. dëkk muy quartier bu mag. muy quartier bu mag. boo xam ne soxla na boo xam ne soxla na ko. Saam. Saam. borom Saam moo ko sancoon. borom Saam moo ko sancoon. ci dëkk yi njëkk ci Touba la bokk. ci dëkk yi njëkk ci Touba la bokk. Cheikh Mouhamadou Fadal. moo ko sancoon. moo ko sancoon. di fa liggéeyal Serigne Touba. di fa liggéeyal Serigne Touba. rafaatale ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. rafaatale ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. kon yooyu ay mandarga la. kon yooyu ay mandarga la. yoo xam ne. yoo xam ne. mën naa yóbbaale dëkk yëpp daal mën naa yóbbaale dëkk yëpp daal. kon ay lu weesu nag ya ngeen defoon ba ubbi ko. yu weesu nag ya ngeen defoon ba ubbi ko. ba ñëpp di ko jariñoo. ba ñëpp di ko jariñoo. kon somb bu yees la. kon somb bu yees la. ak tali yi nga xam ne noo ngi ci fi mu ne. muy yoonu gaaru ndaw bi. ak li ngeen àggale ci assainissement bi. ak li ngeen àggale ci assainissement bi. kon yéen. kon yéen. lu ngeen dajale ci alal. lu ngeen dajale ci alal. lu mu bari bari. lu mu bari bari. day mel ne tuuti na. day mel ne tuuti na. ndax fa ngeen jëm a tax. ndax fa ngeen jëm a tax. ndax ku bëgg a defar dëkk bépp. ndax ku bëgg a defar dëkk bépp. sa yitte du tuuti. sa yitte du tuuti. a tàmbali. kon ngeen xam ne liggéey bi day doog a tàmbali. waaye yëmut fenn. waaye yëmut fenn. loo xam ne day dem ba ci sët. waaye dem ba ci suñuy sët. yàlla na nu ci Serigne Touba gàttandu. te gën cee def tawféex. te gën lépp loo xam ne. te noc ci lépp loo xam ne. gënalu ko ci gënalu ko ci. te naa lépp dëppoo naag bëgg-bëggam. te xam naa ne lépp dëppoo naag bëgg-bëggam. kon nag yàlla na yàgg. te xol yëpp gën koo nangu. te xol yëpp gën koo nangu. yëpp gën cee tabbi. ak pësteef wasalaamaaleykum wa rahmatullah jëf mbokk yi kon lii mooy li nga xam ne ab tënk la ci liggéeyu Touba ca kanam ndax xam ngeen ne Touba ca kanam bari na ay fànn yoo xamante ne bi mi ngi ciy liggéeyal Serigne Touba ci biir dëkk bu sell bi di Touba nga xam ne moo xam ci wàllu social ci wàllu courant wàllu ndox wàllu yeneen ak yeneen ba ci li nga xamante ni moo di wér-gu-yaram gi nga xam ne tey jii moo ñu soxaloon ngir ñu dëgtal leen ko won leen ko ak naal yi nga xamante ne bi jot na ko naal ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir liggéeyal Serigne Touba ci taalibe yi waaye liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi nga xam ne moo waxoon ci Matlabul ni ne waccal ilaahi maskani Touba abad mislas miha bi jaay xayri man abad kon yaakaar naa Touba ca kanam saa su ne day sàkku ñaanuk sëriñ boobu mën a jaar ci ay yoxoom sottee ci moom muy ndam loo xamante ne bii jullit yëpp a ko bokk waaye rawatina taalibe Serigne Touba yi kon ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne Touba ca kanam saa su ne laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam ci la fas yéene nekk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat